dalal également ci euh, euh, édition spéciale bi nga xam ne ñu ngi koy amal Déthié waa Déthié su fekkee ne rek yemb na moom également parce que candidat yi li li ma li ma ci jàngat moom mooy soo leen déggee ñuy wax da ngay sentir ne euh, am nañu déception parce que oui alal Fan Abdou hmm. pour avoir été dans un processus presque pendant un an hmm. nga préparé ko avec les moyens yi nga am nga def ko ci mais imagine le parrainage bi tu fais le tour du Sénégal les moyens logistiques yi ngay yi ngay moyens humains yi ngay def ci. alors ñu jëli Déthié balaa balaa ñu ñu ñëwaat ci yow. Hmm. Euh, s'il vous plaît waaw alors Déthié Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Déthié Fall mooy njiitu PRP nekk également candidat euh, ci élection bi alors euh, Déthié ñu ngi lay nuyu dalal la également ci ci plateau bi. njiital coalition oui fay Pape Abdou di nuyu ñi nga nekkandoo ci plateau bi mhm. alors euh, euh, yaa jiite coalition Déthié euh, ndax dana am 2024 xam te moom wóorutul sénégalais yi li ñu jàpp mooy pour le moment élection bi dàq nañu ko dogal boobu la njiitu réew mi Macky Sall jël ban appréciation moom nga am ci cette décision du président de la République. Euh, le président de la République mu à la nation pour suspendre le processus électoral suspendre l'élection présidentielle mu donne une surprise mais en même temps une déception parce qu'on parle quand même du Sénégal nga xam ni c'est un pays connu pour sa tradition démocratique ça fait ans de de de de nga xam ni ñoo ngi euh, organiser ay élections yàlla may ñu am deux alternances pacifiques nit ñi xëy yeewu dem euh, voté ji en toute sérénité ñu gis seen que sans difficulté et depuis que ñu am indépendance ba tey à chaque fois élection présidentielle bu jotee waxtu ba mu jotee def nañu élection présidentielle yi ñu dem kon président Macky Sall fii benn boîte à Pandore boîte bu pour la démocratie dangereuse pour le respect du calendrier électoral alors que campagne tout le monde sait que c'est une préparation d'au moins deux ans nit ñi nekk ci terrain bi liggéey liggéey bu mu dem ba à la fin def lii mu def nii évidemment tous les Sénégalais sont surpris les candidats retenus également et je pense que loolu baaxul ci sunu démocratie baaxul aussi ci l'expression plurielle waaw euh, euh, Déthié euh, yaa ngi koy wax d'accord ci mais lan mooy nekk posture bi ban taxawaay ngeen di am fii may wax ak yow nii maa ngi nii di dem siège ba ndaxte umpule woo leen ni les candidats ñenn ci ñoom en tout cas war nañu gisee pour def léegi point de presse donc maa ngi nii ci yoon bi pour dem pour mën a concerté ak ñoom pour wax la suite li nga xam ni moom la jox li nga xam ni moo am tey di ci fal processus bi maanaam fi ñu yegg si nii dafa mel ne euh, dooroon na wala prémices yi nit ñi ñu ngi ko doon gis euh, lu mat benn ci ayu bés mais réaction wala peut-être taxawaay euh, pour opposer wu ci li ñu war a yegg si fii am na ñoo xam ne sentiruñu ko ci ci opposition bi loolu lan ngeen ci tontu. surtout yéen yi nga xam ne euh, yéenay les candidats yi ñu accepté maanaam candidats yi nga xam ne nangul nañu leen seen candidature ay fan a ngi nii ba ñu alxamis ba la weesu la ñu daal di adopté euh, la commission d'enquête parlementaire xel waroon nañ njottu ne xëy na fii la ñu jëm en tant qu'acteur politique dinga nga li war a ñëw et pourtant amul benn position boo xam ne di nga ko gis ci opposition bi buy wane ne fi ñu jëmkat kat nañu def attention wala d'accord ñu ci lan ngay tontu ci loolu non amul lu ñuy tontu ci loolu xam nga li nga xam ni ñoo ngi koy def ñoom président Macky Sall di ko yëkkati li nga mën mooy def des communiqués pour alerter loolu opposition bi coalition bu mu mën a def bu mu mën a nekk ku ne te nañ ko mën a def ne ko ku nekk bi nga gisee li nga xam ni jël na ko comme jéego alerte bi nga war def alerte nga ko et on l'a fait maintenant dafa am yi nga xam ni daanaka ci un démocrate mënoo ko xaar ci moom xam moo tax tout à l'heure bi may wax ak yow ma rappeler qu'on parle du Sénégal on ne parle pas de notre pays on parle du Sénégal nga xam ni yàlla def na xam nañu stabilité démocratique bi ñu am xam nañu sañ-sañu ku ne ak aussi ku ne limite bi ngay définir sa bopp ni doo ko franchir pour ñun nag ces limites le président les avait définies pour lui surtout concernant l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, elle est sacrée dans un pays, sacrée dans une démocratie. Donc, on ne peut pas du tout comprendre aujourd'hui que nous def li mu def malgré ñu dégg démarche yi et tout mais yooyu mooy yëkkati kilifa li nga ci mën mooy communiquer et on l'a fait à maintenant il y a une situation qui est de fait mooy son adresse

yow lu mel noonu ngeen ngeen di def. mais kon kon ñu bàyyi ko comme mi ngi dem ci concertation bi. oui xam naa décision bi ñu fay jële également dinañu ko am euh, fii ak ñi nga xamante ne moom mooy les téléspectateurs de de la Sen TV alors oui euh, aw euh, ñu bàyyi la nga eggale. Mhm. parce que euh, à, l'origine c'était deux cent soixante-six candidats ñu amoon seen intention de participation. finalement on en a retenu vingt bu ñu naree duggaat ci beneen processus vingt ñu retenir naka la ñuy mën a taxawaatee encore ci beneen ndax ñoom dinañ amaat possibilité bu bu bu processus bu en tout cas bu choix des candidats nar amaat ndax dinañ bokkam dit mm-hmm. maa ngi wax ne ça fait un an que nit ñi nekk dans le nit ñi nekk sur le terrain parrainage bi ça demandait des moyens les gens se sont investis mm-hmm. financièrement humainement mm-hmm. président Macky Sall bi jël telle décision est-ce que sóor na loolu est-ce que dina am récompense am lu mu delloowaat. ñoo xam ne maa ngi sentir déception. ci seen i parti bi ñu jëlee premier tour ak deuxième tour. ci mhm. parrainage. mais sax may ñun par exemple ñun ñi ñun ñu waxoon parce que ñun loolu aussi defoon nañu ko réclamation ci conseil constitutionnel ne leen ñun on nous a donné jusque quarante huit heures pour ñu mën a compenser li desoon ci suñu parrainage or que am na ñu jàlloon. cinq jours avant nous, ils ont eu presque huit jours avant nous. Mais on est resté trois jours sans dormir. C'est ça, dimanche pour mën a déposer lundi. Mais investissement humain boobu yëpp. C'est nous hein. Mais nga xam ne kooku boo ñëwee ne ko démontol élection. Tu penses que daf lay sourire. Non, c'est une déception. bu fekkoon na sax dafa nekkoon sur des bases claires. bu fekkoon dañu Sénégal Sénégal dafa am calamité naturelle. du metti kenn dogal yàlla la ñuy wax mënuñ ci dara. mais bu fekkee ne c'est sur des bases fallacieuses comme ni ko président Macky Sall defee nii mais daf lay métti et puis ñu dégg sànq wax nga léegi le président de la Guinée là si sama euh, Umbalo mais mënoon wax leneen lu dul loolu bu fi IBK sax yàlla na ko yàlla yërëm bu bu fi nekkoon certainement il a il allait avoir la même réaction parce qu'il a tenté aussi de faire la même chose. maanaam Afrique daal moo mel noonu. Euh, Guinée Alpha Condé il a fait la même chose mais xam nga lan mooy lan mooy wax ji ci ñun foofu la ñu war a gën xalaat lan lay doon. Guinée ba mu defee forcing troisième mandat bi fekk gis nañ li ko ci fekk si saa yu ba mu ne xam ne affaire bi dem lu ma mu xëcc ma jël président assemblée nationale bi takkal ko ne ko coup d'état tas assemblée bi Macky Sall ci tànk yooyu la nekk ban fan la ñuy yóbbu fii ak six mois fan la ñuy yóbbu fii ak un an fan la ñuy yóbbu est-ce que le peuple Sénégal sax mi jàppoon ne dañuy dem élection parce que parce que faut dire aussi période électorale même nit ñi seen liggéey du dox investisseurs yi du ñu ñëw képp ku bëggoon investir da nga koy téye maintenant lii bu naree continuer parce que on va vers des xamoo kañ la élection xamoo kan moo nar a xamoo lan ma nar a nekk réaction de ce peuple bi nga xam te ne commencé woon nañu wane seen dégoût par rapport ak seen manière de gérer ce pays là lan moo nar a nekk réaction par rapport ak loolu donc les gens vont baigner encore dans cette incertitude et encore le en tout cas l'économie du Sénégal en xamatuloo foo jëm parce que dund nga ko ba pare yaakaaroon nga dina jeex donc président Macky il ma waxaat encore ci ci Amadou Ba mi muy wax mais posture Amadou Ba sax ci biir benn ci biir benn bokk yaakaar boo ko xalaatee di nga xam ne lii c'est tout à fait normal président Macky Sall mënul nekk un président bu war a jeexal exercice am waxoo kan moo lay remplacer ci yow ci sa ci sa parti ba à six mois des élections ba tey yaa ngi def nii man da dinaa dem du ma dem préparer woo kenn en plus ki nga tam yow nga toog di seetaan ñiy dal ci kaw nga mel ni da nga bénir ñoo ñi dal seen kaw nga dem congrès wala nga dem ba ñuy bañ leen wooyee ñoom seen seen siège président Macky Sall jëlaat parti bi ne maay continuer di nekk président parti bi mooy wax ne ne ba tey fas yéenewul woon bàyyi bi wax nañ ko sa njëlbeen donc kooku bu xëyee defaat lii xëy dina ñu metti mais du ñu bett ne président Macky moo fas yéene woon bàyyi mbir. et il était en train de voir. ban profondeur lay ut. am na ko nag tey. ci ci mbir bu mu créé. cette lay wax éléphant blanc la ñu indil ne bon c' est des crises institutionnelles lu amul fenn. il va encore entraîner ce pays là dans les lendemains. alors ci loolu Evelyne parce que ñuy wax reporter les mots ont leur sens mais boo déggee ni mu waxee ku wax reporter élection mooy maanaam da koy jëlee ci. altine yóbbu ko alxamis wala nga jëlee ko février yóbbu ko xëy na mois d'août wala nga jële ko jëlee ko mais bu boobaa les mêmes acteurs ñoom ñooy dem les mêmes condition moom mooy am nest pas mm-hmm. loolu la ñuy wax reporter mais soo déggee le président de la République il a suspendu le processus mm-hmm. maanaam ni nga ko déggee mooy dañu koy tëggaat maanaam tey nag la mu togg dañu ko tuub nduggiwaat dañuy nduggiwaat toggaat ñu jël exemple boobu pour mu gën a mooy bi mooy ñi nga xam ni ñoom mooy vingt yi ñu jàppoon ni ñooñ ñooy dem élection ñi nga xam ni ñoom dañ leen a ci parrainage bi mhm. ak ñi nga xam ni ñoom xëy na bëggoon nañu dem mais amuñu fit ñoom ñëpp léegi ñoo ci yem képp cest à fu ne ni amatuñu candidat buy dem élection mhm. te lu koy leneen li deuxième chose lu koy firndeel mais dafa woote dialogue dafa woote dialogue mu ne pour lan pour des élections inclusives loolu la wax de pour des élections inclusives moom la bëgg ci dialogue bi mais dialogue bi weesu tamit loolu la ñu waxoon mais comme comme euh, ni ko ni ko ni ko professeur Sanogo waxee sànq dialogue gi saa yu amee dialogue rek dafa am une question boo xam ne moom la ñu bëgg a régler dañuy naan dialogue pour ñu waxtaane mais dafa am loo xam ne moom la ñu bëgg a régler. c'est qui est ponctuel c'est ça. c'est ponctuel c'est de ponctuel saa yu amee benn chose boo xamante ne rek arrangé wul le parti au pouvoir wala arrangé wul euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën a jàpp ne ñoo am doole ci opposition bi ñu jëm dialogue bu ñu waxtaanee seen biir ba ci biir. loo xam ne kenn fekkewul kenn gisul ñu daal di ne nañ leen dem dialogue ñu waxtaan su ko defee ñi nga xam ne amuñu doole ñoom bu ñu ñëwee il faut ñu xool fan la ñuy taxawee wala ñu ne damuñu mais boo demul yi tamit fa ñuy waxtaanee yëf yi nga mënoon faa ne nga tapé sur la table mm-hmm. nit ñi dégg la boo fa newulee mais bu ñu paree ba tënk yëf dañ koy yóbbu as assemblée jekkal ko def ko loi voté ko et tu seras obligé de te soumettre à cette loi mm-hmm. tu seras obligé de tout faire waaye léegi bu ñu waxee ne euh, léegi dialogue la ñuy jëm loolu mooy war ni kañ léegi fii népp la ñu ñuulal muy parenage baag dara leerul sax léegi Fat Abdou mhm. ni jaloog bi mujj li mu jur ci ay changement ci code électoral bi que yooyu changement sax ndax est duñ ci dellu si parce que bu nee dañuy dem dialogue mhm. c'est open mhm. ku ci nekk di nga naan man problème mu parenage laa am man rawatina ci acteur tigi kon bu fekkee ne dafa egg nag ba ci ki nga xamante ni moom lañ jàpp